متى أدركت لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وسلم اللهم Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الله تعالى وبركاته السلام عليكم ورحمة الله تعالى nuyu bokk di teew ci jotaay bi yépp ci Cheikh Ahmad Tidiane Seck ñu ngi ñaan yàlla dolli guddal fanam dolli wéram sàmmal ko mbootoom barke sallallahu alayhi di nuyoo noonu ay rakkam di baay Abdourahim Seck ak baay sëñ Assane Seck ak sëñ baay sëñ Modou Fall Ñaaxa Seck di nuyu seen doom yëpp di ci jiital Serigne Jibril Seck ak rakkam yëpp <clears throat> di nuyu imaamu ratib Serigne Cheikhou Amadou Seck <clears throat> ak Serigne Modou Roqeya di xalifa Mamma Dikke di nuyu chef de village ak ñi ko bokkal ñëpp di nuyu mu yi di nuyu autorité yi di ci jiital président de la république ak ñi ko teewal ci gox bi ak jotaay bi Baye Cheikh a ngi yëkkati nuyoo itam di nuyu mbooleem euh, diine ji jiital ci xalif généraux yi ah bëgg a tënk kàddu gi moo tax tey limunu ñëpp waaye xolam lim na ñëpp jullaat julliwaat ci yonent bi sallallahu alayhi kàddu yoo xamante ni fii nu koy waxe am na téeméeri at ak ñeen fukk sañee su fee wax lenn lu dul yàlla nee na cib digle yàlla nee na cib tere yonent bi sallallahu alayhi nee na yonent bi cib digle yonent bi nee na cib tere nopp yooyu su déggul ba nëgëni dégg mën na koo të waaye nag fa sakkir fa inna zikra tan faxul muminin te fàttali moom dina jariñ ki gëm looloo tax rek ñuy fàttali fi jamono toll nag umpul kenn lii dafa mënut ñàkk rek te tollu noonu ci suñuy xol muy ndono boo xam ni ndonal yenent bi la sallallahu alayhi ñu koy doon donnante ba ci seen jotaayam bi yàlla na gën a yàgg mu ñuy fàttali rek li muy fàttali boppam mooy ni jël sunu bopp delloo ko ci nga ki nga xam ni mu musuñu caa jóg muy sunu boroom nooy umpule waaye moom du koy umpule ñooy réere waaye moom du kuy réere ñooy juum waaye moom du kuy juum li nu war nag nun mooy yor wàcc waayu jaam rek mooy dig def lim nu digal bàyyi lim nu tere ku def loolu de yaa ngi ci sécurité boo xam ne lu mën di ñëwati bànneex lay doon ci yow ndax loolu rek mooy sécurité loo mën di am ci àdduna te amoo sa boroom nekkoo ci ay digalam bàyyi ay tereem la nga nekk du sécurité lu ñëw rek di tiitaange ci yow nekk njàqare ci yow nekk njuumte ci yow boo wéeroo ci yàlla nag te mooy wéeru ci yeneen bi sallallahu alayhi wéeru ci lim fi bàyyi ak ñim fi bàyyi teñ tege ci aw yoonam teñ tege ci aw yoonam doo juum àdduna nag sunu borom du tooñ kenn inna allaha laa yuslimuuna naasa na walakin annaasa yaslimuuna anfusahum yaslimuuna anfusahum yàlla du tooñ jaami waxtu wuñ gisee ci seen bopp wala ñu yëg ko lu leen naqari rek noo ko teg seen bopp kon lu nu wattandiku rek doyul àdduna bi itam suuf si lu laab la sunu borom wàcce ñu fi wàcce fi lu laab ak lu koy laabal muy yonent bi sallallahu alayhi wa ak alxuraan mooy alxuraan ak sunna buñ ci toppee laab ji mu gi mu woon moom lay dellu moom lay delloo lu fi lëndëm nag wala mu taq rek nun jaam la li nu ciy dimbali nag kenn ku nekk jàpp ni ayib ji du kenn yow rek bu ko ñëpp defee rek lépp laab kenn bañ koo jiiñ sa morom alxuraan da daan wàcc ngir ab jaam boo xam ne du doon yonent bi du doon xulafaalu arbaa ku ko foogul ci boppam sax lay doon alxuraan wàcc ngir jëmmam jooju ba nëga ni nag eh, ayib itam ak mbugal yii di ñëw muy balaa yi nit ku ne war ngaa jàpp ni baadu maa def ayib ba tax lii wàcc nga natt sa bopp xool say ayib lala saytaana mane te yàlla gërëmu ko wala sa bakkan mane la ko walla bànneex wala bëgg-bëgg ak lu mu manti doon yaa ko gën a xam sa bopp yàlla rek la ko gën a xam waaye ku dul moom yaa ko gën a xam sa bopp ndax moom naqra nahnu aqrabu ilayhi min xablil waridi moo nu gën a jige sun buumu xol kon lu ne rek moo nu ko gën a xam waaye lu dul loolu nag yow miy jëf wala ngay yéene kenn gënula koo xam nga yël bu ba set nag bàyyi lépp lu fi takk rek nun la saharal fasaada fil barri wal bahri bi maa kasabat ay dinaas kon ci sunuy loxo rek lu ayib ci la jóge su ma nee loxo yi nag xol bi ci la xel mi ci la bët yi ci la bakkan yi ci la tànk yi ci la loxo yi ci la nopp yi ci la ba cër yëpp mat ndax lenn rek la di jénn jëmm nu góorgóorlu itam ci sunuy diggante ci sellal ko kilifa yi itam bàyyi seex a ngi wax di ñaax boppam di leen ñaax nu dollee ñaax njaboot gi fi jamono toll nii yàqu-yàqu yi bari na jikko yi yàqu na te lu bari ci jikko yi lay sababoo soog a mel nenn di te bu nattu dee ñëw te bu nattu dee ñëw ngir ayib yooyu ñi ko doon jëf ak ñi ko jëful woon deesu leen ci xàmmee wattaqu fitna laa tusibanna alladina zalamu minkum xaasa boo dee bu ay nit dee def fitna te fitna weesuwul def lu lu yàlla tere ak yonent bi sallallahu alayhi wa tere su ko aw nit dee def nag ay kilifa di leen seetaan waxtu wu nattu di wàcc ci ñoom du teggi kilifa yi ba wëttuwul ci ñoom lay jiitu loolu sëriñ baa ngi koy fàttali boppam di ko fàttali mboolem kuy kilifa gu yor kàddu diine rawati ci biir réew mi waaye rawati fii ci sunu dëkk bi itam mu ngi ciy ñaax ñëpp ñu dellu góor góorlu ñaaxaan njaboot gi bañ a wattandiku kàddu yi leen njaboot yi di wax wala ñu ni sonn nañ wala ñu ni tàyyi nañ noppalum noflaay amul ci biir àdduna rawati koo xamante ni diine nga doon kon ne ñëpp dollee góorgóorlu njaboot gi itam dimbali kilifa yi kàddu yi nga xam ne ñu ngi koy yëkkati ci média yi umpul kenn rawati weeru koor wi képp kuy kilifa ak diine wala ngay kilifa ak aada ak foo man di ne yor télévision wala ngay déglu wala nga yor ci téléphone yi di gis ci média bi ci presse bi yaa ngi gis ni am na loo xamante ni mu ngi raam te bés ci waxul wattandiku wuñ ci mën naa dem ba jur fitna ci biir réew mi te bu boobaa kenn du ci mucc diine ji li ko taxoon a ñëw du jullit ak moroom ma di taxaw di xaata bante ku ne naa la maa la man balaa kenn xam ki man sa morom mooy li sëñ Cheikh am du wax dangaa dund ci àdduna ba jóge fi ñu waajal la def la ci biir suuf nga dekki am yërmaande suñ borom mu gërëm la ëllëg nga génn ci biir bàmmeel dem yowmal xiyaam ñu xool sa jëf ni la tedd na ni nga niñ ko bëggee woon buñ la dee jéggal jéggal la nga soog a jéggi dem siraat dem biir aljana bu boobaa boo tàllalee loxo sax mënoo ndamo ni maa man ñëpp ndax da lay wóor ni yërmaande suñu borom rek moo la dugal fii kon man dara amul ci kenn kon ne ñëpp góorgóorlu tarixa itam bi ko mag ñi di sos sose wuñ ko woon ngir di ëkkonte ak maaman lii ak maaman lii ku mel ni maam seexu cana ba amari ndaag nag ba muy yëkkati jaasi ak fital ngir islaam taxaw tëkkonte ak bàkkonte taxul woon moo tax njaboot gii ci kër seexu cana ba seexu cana baa ngi leen di gën a naab bu kenn am sa sa sa liberté bopp di dem ci benn presse di fa waxal turu canaba muy ndaw muy mag muy góor muy jigéen te sëriñ canaba yónniwu la fa ba naab la wax la lam la waxloo ku ko def daal yaa ngi tooñ kër gi yaa ngi tooñ diina ji yaa ngi tooñ tariixa bi sëriñ baa ngi ci artu ñëpp ku ko doon def itam na na dakk nga bañ koo defeti noonu mu ko waxee fii ci canaba itam mu ngi ciy lancé appel mbooleem kili kilifay diina yi mel ni moom ñu def noonu ca seenu njaboot sëriñ baa ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp di gàddal kàddu yi wa saalik alallaahi bi hasis wa rahmatullahi taala wa barakaatu fatihi boo xasee ni allahuma salli ala sayidina muhammadin wa ala alihi xaqa boo ko defee am nga salaatul fatih waaye fekk nga yéene ko ci lu nekk nag lu looy def te yéene jëkkul rek xaman yàlla faalewu السلام عليكم ورحمة الله يلا نو أم غرم يلا أجي أعاد في تباخ تلون دف مباخ السلام عليكم ولا آدمي خلا فتن ملكية الله